إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi gannaaw ba ñu sante sunu boroom gannaaw ba ñu wéetalee ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu ñi ngi koy ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin bokk jullit yi ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla fu ngeen toll ngeen di tuub di dellu ci moom suñu boroom yàlla mbooli mi bàkkaar mooy ka nga xam ne moo koy jéggale gannaaw loolu mbokk jullit sunu xutba tey bii mi ngi jëm ci benn jaamu yàlla boo xam ni day boole jegeel jaam bi boroomam waaye jegeel ko ay mbokki jaamam mu bokk ci lañ gën a yaakaar ci liy diisal balaasu bi si pénc li gën a gaaw ci yëkkati darajay jaam bi la nga xamee ne nii mooy la ëpp luy dugal nit ki aljanna ki gën ci nit ñi mooy ka nga xam ne nii da koo da koo melawoo gis nañu it ne yowmal qiyaama kay gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca ña nga xam ni dañoo taxaw ci loolu yonent boobu fum masaan toll ci julleem daan ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ko ko loolee mbokk jullit mooy la nga xam ne mooy jukko ju rafet ab jullit gannaaw bu mu gëmee yàlla xamal ne fàgguwul lu gën a màgg lii di jukko bu rafet mooy la gën a màgg lu doomu aadama di toileto mooy la gën a màgg lu doomu aadama di suturloo ci àdduna ak alaxira jukko ju rafet mooy lay teqale doomu aadama yi ak baayuma yi loolu nag mbokk julit nañu xam ne dafay lënkoog doomu aadama ci mboolemu ay jëfam ci doxalinam ci liggéeyam ci mboolem loo xamee da ciy dugg wa ca génn jukko ju rafet day feeñ ci loolu su nekkee ci mbégte jukko ju rafet day doon lu koy taaral su nekkee ci tiis jukko ju rafet day doon lu ñëw di ko dimbali da ngay gis yi waajoo ñi nga xam ne dafa ànd ak jukko ju rafet jooje mooy la nga xamee ni nii mooy la gën a màgg ci loo xamee ni nii day wane ne ngëm yàllam day ngëm yàlla la gu mbaax la gu mat la suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi ñuy digal ni ay yéen jullit ñi dee leen rukkoo dee leen sujuud dee leen jaamu seen boroom tey def lu baax di jihaad ci yàlla na yàlla yeyoo ñu jihaad ko ca ca bu ngeen dee def def leen aw yiw ngiree ngeen doon ngeen texe loolu kon mbokk def aw yiw woowee mooy yiw wa nga jaarale sa digganteeg sa boroom waaye yiw wa nga jaarale sa diggante ak say moroom yonent yàlla yi yàlla leen yónni woon ñu jottali ay yonentam waaye suñu boroom wax nañu taxawaay yañ taxawoon ak seen xeet kii di yonent yàlla nuux junni at presque taxaw na di ko muñ nattu ya nga xam ne xeetam ña ngi ko koy teg ibrahima alayhi salaam suñu boroom melal na ko moom day ku lewetoon la ku amoon ñeewante la ku daan dellu ci boroomam ismail alayhi salaam suñu boroom meelal ko ne ku fonkoon dig yam daan diggante la ak jaami yàlla yi dig yam daan diggante ak boroomam yonent yàlla yuusufa nge ne ñii di frère am yi lu ne def nañ ko ko keroog ba mu demee jekku leen nga xam ne bu ko neexoon lu ne mu def ko ci ñoom lam leen wax mooy tey kenn du leen yedd dem leen baal naa leen yal na yàlla baal leen loolu mbokk yàlla ñu koy nettali ci téeréem bu tedd bi jubluwaay ba ci gën a màgg mooy ngir jullit ñi jéem a melowoo melokaayu yonent yooyu yonent yooyu ñi ci gën a mat melokaan mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nee na man de yàlla dama yónni ngir jukko yi rafet ya nekkoon ca nit ña ma jiitu woon man ma ñëw daal di koy matal loolee moo tax jàngale na ko ci ay waxam jàngale ko ci jëfam jàngale ko ci ay jëflenteem ba suñu borom yàlla mujj ko tagg ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow de yaa ngi ci jukko yu gën a màgg muy wone ne képp koo xam ne ni it danga bëgg a yor jukko yu màgg yu yàlla gërëm ngalawaay yoon ba mooy jéem a roy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo doon xeex ak bakkanam ba ngiree matal lépp loo xam ne nii jukko bu tedd la di xeex ak bakkanam ba ngir soril ko lépp loo xam ne nii dafa nuru ci lu ñuy mën a yedde doomu aadama mu doonoon ko suufe lool ñépp seedeel ko ko mooy ña am ak ña amul ña néew doole ñu mën a doon mu doonoon koo xam ne nii ku tabe la woon lool amul kenn ku mësan ñëw di ko laaj lu dul am na lum ko jox muy koo xam ne ku yaataloon kanam la lool jarir ibn abdullah nee na man day musuma dajeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu dul danga koy gis mi ngi lay teeroo di muuñ sallallahu alayhi wa sallam mooy ko gënoon a matal ay digam mooy ko gënoon a nemmeeku ay sahabaam ña ca daan feebar mu seeti leen ñam ci gisul woon mu laaj leen amoon yërmande ci ñëpp daana taxawal julli ba mujj mu gaawal julli gi ngiree daa dégg benn xale bu ndaw bi jooy mu ne xale boobu day xam naa ne yaayam dana nekk ci jafe-jafe loolee tax mu gaawal ak julleem sallallahu alayhi wa sallam mooy borom muñkat bu màgg ba yàlla daana ko nattoo la nga xamee ne mooy xiif yu tar moom ak famine ba ah loolee kenn du ko xam ci moom xanaa lu dul luy feeñ ci kanamam waaye làmmiñam ba daawul sax lu dul di sant boroomam jalla wa ala doonte ne ni nettali nañ ña léeg-léeg daana yegg ba takk sax ay xeer ci biiram ba sallallahu alayhi wa sallam mbokk kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci loolu la yaroon jabootam nga keroog ba nga xamee ne yahud yaa ngi ñëw di ko nuyoo ci biir nuyoo bi ñu ko ci rëbbaale Aïcha jóg tontu leen dafa jóg na ko déedéet Aïcha àndal ak dal moytu lépp loo xam ne dafay jëm ci la nga xam ne wax ju ñaaw la ak wax ju ñagas la mbokk kii mooy suñu yonent bi nga xam ne moo doon woo xeetam di leen jàngal ne leen xam leen ni day àjjana la fay ëpp luy dugal doomu aadama yi moom mooy ragal yàlla ak jikko ju rafet noonu it la daan wax ne ki gën a rafet diine ci mboolem jurit ñi mooy ka nga xam ne moo ci gën a rafet ay jikko da daan digle ne ngalawaay fu ngeen mën a nekk dee leen ànd ak ragal yàlla heure boo yégee ne def nga bàkkaar gaawal daa di def lu baax ngiree loolu mën koo far ca na nga fexe nekk ak doomu aadama yi mboole seen ca la nga xam ne nii moom mooy jukko ju rafet ay yow mbokk julit xamal ni ponk jaamu yàlla yi suñu borom yàlla santuñu santuñu ko lu dul mu jegeel ñu suñu boroom waaye rafetal suñuy jukko ba ñu mën a nekk jàmm ci kaw suuf looloo tax borom bi ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar ki nga xam ne mi ngi julli ca julli ga jaar yoon day dana dox digganteem ak mboolem ñaawtiif yi ak mboolem loo xam ne munkar la muy wax ju bon ak jëf ju bon amul kenn kuy rafetal julleem ba yàlla nangu julli ga lu dul julli googee teqale koog mboolem jëf yu bon ak wax ju bon ya nga xam ne da doon dox digganteem ak doomu aadama yi mbokk azaka ngi ni suñu borom na ko jëlal ci nit ñi azaka tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa tutahhiruhum biha azaka day dana laabal doomu aadama yi ful leen laabal leen ci mboolem jukko yu bon waaye yóbbu leen ci jukko yi gën a kawe rawatina mbokk julit lii nga xam ne mooy jukko tabe doomu aadama yi la nga faggu nga jël ko di leen ko jox ca yaakaaroo ca benn pay du dul payu yàlla loolee la gën a gaaw ci defar sa diggante ak ñoom la mbokk xoolal koor mi ngi ñëw ngir jàngal doomu aadama bi mu doon koo xamee ñi ni ku dal la ci ñàkk a tooñ waaye di bala ña koy tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne même bu nit ñëwee tooñ la ne ko yow dama woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki bàyyiwul wax yu bon ya jëf yu bon ya yàlla soxluwul kooram muy wane kon ka woor na yàlla woor na yàlla santaane ñu woor ko mooy que gën a am jàmm ci jaamu yàlla yi waxuma du leen tooñ waaye ñakkati tooñ sax di leen di baal mbokk aj màkk mi ngi nii sunu borom subhanahu wa taala ne laa rafasa wala fusuqa wala jidaale fil hajj képp koo xam ne yaa ngi aj bépp wax bu ñaaw bépp jëf bu ñaaw bépp dàgg sante ngalawaay bu mu dugg ci at googee lii kon mbokk da ngay gis ki saxal la nga xam ne mooy ponki jaamu yàlla wallahi ku mel noonu fokk ay jukkoom rafet diggante ak doomu aadama yi ndax loolu lépp moom muy diine amaa na ku jàpp ne yow day sa diine baax na sa ngëm baax na waaye yàgg jaami yàlla yi loolu neex def ak ñoom déglul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iquhu mu ne maa ngi leen di seedeel ne gëmul yàlla mu wax ko ñetti yoon mooy koo xam ne ay dëkkandoom wóolu wu ñu ayam loolu mbokk mi ngi noonu muy won ne képp koo xam ne kon gëm na yàlla ku mel noonee fokk mu rafetal ci ay dëkkandoom moom la yonent bi alayhi salaam daan wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut wa fi riwaaya fal yukrim jaara képp koo xam ne nii aw fala yuzi jaara képp koo xamee ne nii gëm na yàlla gëm bis pénc rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na nay teral ay ganam ku gëm yàlla gëm bis pénc ngal la waay nay wax yiw wala mu noppi ki gëm yàlla gëm bis pénc ngal la waay ne fexe bañ a lor ay dëkkandoom mbokk gëm yàlla googe yonent bi da koo lënkale woon ak kersa doomu aadama bi ñàkk kersa ci jaami yàlla yi xamal ni ngëm yàllam baaxul amul kenn koo xam ne nii sa ngëm yàlla mat na lu dul nga nekk borom kersa ñaar la yoo xam ne nii du ñu teqali ko comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale looloo tax ba mbokk julit nañu góorgóorlu waat xoolaat suñu bopp ñu ngi dund ci jamono joo xam ne kersa la nga xam ne mooy jukko yu rafet ya suñu diine jàngale woon fekkoon fi yoo xam ne sunu maam yi ñoo ko yoroon avant l'islam di ñëw loolee mbokk mi ngi réer benn par benn tey jii da ngay xool doomu aadama yi ana ñan nga gis tey ñuy bëggante ca bëggante boo xam ne dara lalu ko lu dul yàlla kese ana ñan ñooy ngay gis tey ñu doon ñoo xam ne dañuy matal mbooli mi dig yoo xam ne dañ ko digganteeg doomu aadama yi ana ñan tey ngay gis ñoo xam ne lu génn ci seen gémmiñ ci wax rek dëgg kese lay doon duñu fen duñu digge lu ñu lu ñu dul def ila axiri ana ñan ñoo xame ne ni tey ñoo jàppe doomu aadama yépp def leen ay doomi ndey comme ni jullit war a yeme mu yemele ay mbindaanam yemele ay chauffeur am yemele ay ouvrier am yemele dëkkandoom ña ca am ak ña ca ñàkk ñépp mu jàpp leen def leen ne samay doomi ndey lañu ana maandute bi nga xam ne moo daan am ci diggante nit ñi ak ña ñuy liggéeyal ak ña nga xame ne nii ah ñoom it ñoo leen di liggéeyal tey ana tey lan la ñuy gisoon ca doom yi nañ daan amee yërmande di jege woy jur yi di def ñoom ci njëkk ana tey la nga xame ne nii noonu la dëkkandoo yi daan nemmi konté ak dimbalante mbokk yooyu yépp tey da ngay gis ne lu manqué la sunu jamonoy tey ji ana kóolute sunu jamonoy tey ji ana yërmaande sunu jamonoy tey ji loolu lépp mbokk dafa doon loo xame ne nii lu ñu manqué la waaye bu doon dañu dellu gannaaw ci tuuti bokk nañu xam ne yonent bi ki sahabaam naam jihaat nañu ubbi nañu ay dëkk waaye bu ñu xoolee lislaam bu ñu demee tey ba ñu naan presque un milliard et demi ñi ngi doon ñoo xam ne ñi ngi dund lislaam mbokk lislaam ñi ci jaas yi dugal daanaka boo leen xoolee du ñu paase lu mat cent mille wala deux cent mille personnes ay millions yi millions yu duggoon ci lislaam gannaaw jamono sahaaba yi lan moo ko waral mbokk yonent bi ak i sahaabaam dañoo bàyyi génération yi nekk seen gannaaw ay jikko yu rafet jukko yooyee lu ci bari comme naar yi dañ daan doon ñu daan def commerce di dem di jaxasoog nit ñi jaxasoo boobu ñu daan gis ci ñoom gis ci ñoom dëggu gis ci ñoom maandute gis ci ñoom la nga xam ne ni mooy yërmande ak képp ku ñuy jëflanteel laayi li biir sàkku sa njëriñ loolu moo taxoon ba fu ñu jaar rek ñoo ñi dugg ci lislaam ba ci Sénégal gi Sénégal benn jihaat ñëw fi di jihaat ak suñu waa réew waaye ñi fi ñëwoon di jëflante ak ñoom jëflante bu rafet ca la ñu gisee ni lii de mooy diine dëkk loolu it yow xamal ne doomu aadama bi danga doon kuy woote ci lislaam ci dëggu ba nga xam ne dëggu nga ko di woote di saxal ci lislaam ca la nga xam ne laay biir laay biir ga ngay def waaye yaa ngi dàq ci lislaam heure boo wonee ay jukko yoo xam ne jukko yu ñaaw la ba benn wax bu siiw boo xam ne nit ñi ñi ngi koy wax benn américain boo xam ne dafa nekk ci Amérique dëkk fa ak ay jullit mu gis melokaan bi ñu nekkee dal gi ñu nekkee ak Amérique ni mu jaxasoo mu daal di gis ne ñii daal ci àjjana lañ nekk mu ñëw laaj leen ba ñu expliquer ko lislaam mu tuub dugg ci lislaam mu ne nag léegi man danaa dem xool dëkk jullit naka lay war a mel waaye yàlla ba mu ko nattoo dëkk jullit ba mu dem ba gis la ñuy jëflante lan la wax mu ne maa ngi sant yàlla bi ma xamee lislaam avant may xam jullit ñi ndax su ma xamoon jullit ñi dama dugg ci lislaam am ñeneen ñoo xam ne dañ naan ñun dey dem nañu Europe fekk fa lislaam mais fekk ñu fa ay jullit ñu ñëw ci dëkk lislaam yi fekk fa ay jullit te fekk ñu fa lislaam ca mooy tey jii mbokk jullit dañuy gis nit ki bu fonkee rendez-vous ñu ne ay kooku allemand la tubaab la nit ki bu dee dafa fonk ay diggam ñu ne ah kooku moom tubaab la kaza wa kaza mel ni lislaam jàngaliwut loolu mbokk déedéet abadan na ma leen ko waxe sànq mooy li am diine lislaam dafay fekkoon jukkoy rafet diine lislaam ñoo mottali ko julit bi xam diineem julit bi jàng diineem julit boobu ku mel noonu moo war a gën a nekk misaal nekk njiit ci lépp loo xam ne nii ay jukko yu rafet la su ko defee mbokk islam mi ngi nii mooy benn diine bi lay woo naan la defal lu baax ci say noon suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim suñu borom mu ni di def lu baax du yem mukk ak def lu bon ki ñëw jóge fale tooñ la jël say ak ngal la waay yow delloo ko ci la gën a baax suñu borom yàlla nee na bu yàggee rek nooneel gam noonu woon ak yow day wëlbatiku nekk la nga xam ne ab xarit bu la jege la mu ne nag loolu kenn du ko mën a jege lu dul ña nga xam ne dañoo muñ kenn du ca mën a yegg lu dul ña nga xam ne dañoo am cir bu màgg mbokk ki lay wax rafetalal jëm ci say noonu moo kooku lan la lay wax ci ki nga xam ne noonoowul ak yow kooku lan la lay wax ci ki nga xam ne dalaa defal mbaax loolee mbokk kon jukko ju rafet mi ngi noonu ngalla waaye góorgóorlu leen dellu ci ñu yar ci njaboot gi commencé ci kër gi yërëmante bëggalante jàppalante commencé képp ku ñuy jëflanteel sa jubluwaay nekk naka laa koy jëriñe naka laay jaamoo yàlla ci moom ci def njëkk ci moom bañ a doon li xew suñu jamono yi tey mooy jamono yi profit doomu aadama yi seen jëflante yépp mooy naka la ñuy amee njëriñ ci jaami yàlla yi looloo tax ngay gis koo xam ne bu gisee ku mën a jëriñoo jukko ju rafet la koy won suufee ci kanamam wax yi gën a neex nuyoo yi gën a mat ngiree lan intérêt ba mu am ci moom amma koo xam ne jàpp ñu ko amulu ko benn intérêt kooku moog sagar bi muy romb ñoo yem abadan mbokk julit julit mooy ki nga xam ne mooy joxe julit mooy ka nga xam ne mooy yaakaar payug yàlla ca xam ne lay jóge ca yàlla moo ëpp moom la muy joxe joxe boobee na doon ci wax ju rafet la na doon ci jëflante ju rafet la na doon ci alalam ju rafet la mbokk lii mooy la nga xamee ni nii képp koo xam ne matal na ko yàlla dana ko may texeeg àdduna doomu aadama yi bëgg ko di ko ñaanal même bu deeyee loolee continuer ca yowmal qiyaama dana bokk ca ña gën a diis balance bokk ca ña gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla rafetal suñuy jukko dëppale ko jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla def ñu ñu am njëriñ ci jaamu yàlla yi yal na yàlla musal ñu ñuy lor jaami yàlla yi yal na yàlla defal ñu la nga xam ne mooy mujj gu rafet defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay yal na yàlla yërëm suñu mboolem way dawlu yal na yàlla teete ci yoonu njub suñu mboolem mi njaboot yal na yàlla defal ñu àjjana firdaws muy suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin